waaw El ñi ngi taxaw ak Simon ginnaaw bu mu génnee sound bu mu mujjee génnee Crazy am na lu mu déggoon mais boobu ba léegi gisuñu ko Simon. Mhm. ginnaaw bi nga génnee Crazy Yes ñi nga xaar la neen gisuñu ko boobu ba léegi lu waral toogaay bi. waaw dama fi nekkuloon nag déjà asalaamaaleykum waaw euh, dam fi nekkuloon voyagé woon lu yàgg nekkoon ci ay yenn projet waxoon nañ ci sax donc euh, projet boobu moom mujj sotti ma dem pour finaliser def signature yi pour waajal 2020 bi mais instant yi nii bi ma ñëwee jël nañu date pour def clip bi parce que bëggatuma génnee son nii te du am vidéo quoi donc tàmmal nañu gars yi vidéo surtout Crazy bi yóbbu affaire bi beneen level donc incha allah dañu bëgg a ñëwaat ak beneen vidéo bu bu dóob génne waale single bi quoi. mais si moo vidéo Crazy Yes bi ban gaan moo ko job parce que vidéo bi dafa dóob. Atugu moo ko jot Atugu benn booy la bu nekk euh, Ziguinchor tu vois donc. Euh, Euh, ma indi ko Dakar muy joobax ñun ci wàllum Y'en a marre ci projet Y'en a marre yi reste affaire audiovisuel yi donc ñuy joob ñuy joob petit à petit muy def ay affaire yu nice et après on s'est lancé ci Crazy Yes quoi ko naroon Crazy Yes bi keneen laa ko naroon defal mais après bi ma gisee booy bi ak euh, xarañam ak ni mu buggee affaire bi ma ne ko ay woon nañ ko def ko mais Simon lu mu bëgg wax si Crazy bi ñu gis mu indi ay gars yu ponkal gars yi sol ay yére yu ngande bu bëgg a dekkal rap 98 ak colin yeeg yooyu noonu. loo ci bëgg expliquer. non mooy je crois wax dañ ko waxati ko on est juste nostalgique de benn période et il fallait tamit def leneen parce que tendance bi ci game bi jamono ji dafa am benn xeetu musique boo xam ne boo ko defulee rek doo doo bokk donc il fallait ñu wane ne loolu du dëkk donc ci lañ ñëw def Crazy mu def bruit donc euh, gars yi accepté ko sant yàlla alhamdulilah e loolu la loolu la affaire bi il était question de démarquer wu mm-hmm. bañ a ñëw nekk ay xaru yar comme niñ ko wanee ci clip bi mm-hmm. pardon def ni ñëpp di def mais il était question de ñëw mm-hmm. ne ah ñun de lii la ñu fil voilà instant bi Simon lu muy waajal ñu ngi waajal comme ni la ko waxee deuxième clip ñu ngi waajal benn euh, entre parenthèse benn genre pré album voilà benn entre parenthèse lay doon ay quelques son jox ko gars yi et 2020 ñu ngi ci suñu album hip hop traditionnel ak instrument traditionnel yi donc parce que fan yi ci loolu lañ gën a focus ko ok mais ren mën nañ xaar VSD. VSD incha allah avril incha allah avril waaw. ok kale nga ko. waaw ñu war nañu ñu ngi commencé kale jàpp nañu période bi ñu ngi commencé kale incha allah nañ ko nañ ko boucler avril. mais actuellement hip hop bi si moo yëngu na. njibbi si nga ñëw nga gis nga nu mu yëngoo diggante One Lyrical Dip Ngaaka jàppal bàyyil loo ci jàllale ban message. game la game la nañ ko game dañ ci toll nañ ko game. loolu rek. game la loo bëgg ma wax leneen. <laughs> jaajëf kon daa si pop elage grand si moo nee na game la nañ ko game mais na sain rek jaajëf ñu xooliwaat keneen.